بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل في محكم تنزيله هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu bokk jullit yi bokki taalibe yi bokki réew mi ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi Serigne Touba tey ci kaw suuf xafidahu llahu taala wa raahu wa ayadahu wa zaada min nasrihi di ñaan mu yàgg fi te ànd ak ba mboolem naal yi nga xam ne am na ko ci lislaam suñu borom may ko kàttan ak ba lépp mu àggale ko mu kaw gi xam kon lii ñu def lépp ndigale ma yéenee ma taxawaay ma kon doonu ji lu weesu rek defal nga def yemal fii nga yem fii kon cant gépp dañ koy delloo ci moom ndax liggéey bii nga xam ni mooy liggéeyu mag bii nga xam ne ñu ngi ko doon def ci turu mboolem comité organisation bi yëpp nag ak mboolem taalibe yi Serigne Touba yëpp dañuy yëkkatiwaatu cant ak ngërëm di ko jëmale ci moom ndax Serigne Touba bokk na ci lim fàggul taalibe yi ci liggéey bi mu di doon liggéey rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mooy képp ku ak jotaay rek da ko mën a sëkk kon nag moom ñu ngi koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak ndax mboolem li ñuy séentu ci moom rek weesu na ci faru diggam ak boroom li ëpp solo mooy foo ko séen rek mu delloo la ci yàlla te loolu mooy li jiitu ci li ñu doy kilifa. amul jën yitte àdduna dëddu na lépp dama ko waxal keroog dëgmal boromam dëgmal Serigne Touba lu du liggéeyee Serigne Touba bi du itteem lu jaamu yàlla du itteem kon dañuy ñaan mu yàgg fi tànn biir ndax taxawaayam mate na ko sëkk liggéey bi itam di liggéey màgg gi yàlla def na ba mu duggee ci suñu loxo ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké mu jëloon ko def ko jëwriñ ji keroo ba ñu taxawal comité organisation bi. yàlla def na moo ñëwaloon boppam waxoon ci kàddu yu rëy yam ci waxoon kenn du ko fàtte muy la waxoon ne bu ma ko mënoon sax damay topp seen ginnaaw di di di leen liggéeyal kon sëriñ bi liggéey bi fu mu àgg rek cant gi dañ koy tàmbali ci moom ndax ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké joxe ndigal da ko ànd ak ñun taxawuñ ci ba bari na ci ñoo xam ne sax moo leen tàbbal ci liggéey bi benn ci sëriñ Cheikh ñun mm-hmm. danaa koy fàttali waxtu ne ak ñu bëree ñoo xam ne ci kilifa yoo xam ne rawatina ci waa majlisu suuraa bi moo leen jox ndigal ni leen ànd leen moom te jàppale ko kon moom moo see génne loxo ba mu nekkee ci loxo bi itam lépp dañu ko bàyyi bi fi Cheikh Sidi Mokhtar Mbacke nekkee itam seen diggante ñépp xawoon nañ ko mu jël lépp teg ko ci loxoom waaye mu jëlaat lépp bàyyiwaat mu ko teg ko ci sama loxo ci doy bi mu doonee Serigne itam. fu mu ko fekkoon rek da koo yokk gën koo dëgëral sàmm waxtu bu nekk loolu la may fetli li ma bëgg de mooy dëgëral ak sàmm la te loolu mu ngi koy dox suñu digg moom kon dañ koy sant di ñaan Serigne Touba mi nga xam ne li muy jëf lépp moo tax yàlla na ko fay di gërëm nag mboolem ñuy seqaloon liggéey bi yëpp tàmbalee ci waa mujj suura bi ba agsi ci waa comité organisation bi ci jiitalu Serigne Ousmane. Euh, tudd ñi ngi sant comi commission yëpp bayuñ kenn kenn ko ci ne na la war ci liggéey bi def nga ko ci rafetal waxoon naa kon jëru del si waat euh, waxtaan yi ngeen fi waxtaan itam lépp ni ko sëñ Saam leeral léegi lépp ay wax la rafet li sëriñ Ousmane wax li sëriñ Abdoul Ahad Mbacké mi nga xam ne mooy yor kirtil ak communication wax li nga xam ne euh, sëriñ Abdoul Ahad ka mi jiite commune Touba wax na ko ak li nga xam ne professeur li ñu koy ak ñoom àndal wax nañ ko yëpp ak ba sëñ Moussa Moussa ñu yor wàllu ndox mi kenn ku ci ne la ma wax wax ji leer na kon jëru del si wat kon jataay bi li ko waral mooy jataayu sant yàlla sant yàlla ak sant Serigne Touba ndax bis bii kat bisub day bisub cant te sant kat dara gënu koo màgg ci alxuraan moo tax ma ubbee aayit ma ubbee ndax boo delloo ci alxuraan suñ borom wax na ko fu baree baree bare cant nag la ci jiitu mooy cantu cantu xol mooy wama bi wama bikum min ni'matin fa min Allah ak cantu làmmiñ mooy la in shakartum la azidannakum ba ca des mooy cantu jëf i'malu ala Daawuda shukran waaye nag dégg ngeen daje suñu borom teg wax xaliilun min ibaadiya shakuur kon sant lu jëfe nag seytaane bi nga xamee ne suñu borom dàkku na ko ba génne ko bokk na ca lam sartante moom summa la aatiyannahum min bayni aydihim wa min xalfihim wa an aymanihim wa an chamailihim wala tajidu aktharahum shakirin loolu nag moo tax alxuraan boo fa demee walakin akthara naasi lu bari bari na ca walakin aktharahum la kon sant yàlla lu jafe la boo demee ci alxuraan itam dana fa bari lool foo xam ne da ngay dégg suñu borom bi ci wax ne qul man yunajjikum min zulumaati albarri walbahri tad'uunahu tadarruhan wa xufyatan mooy li taalib yi def la in anjaytanaa min haasihi lanakuunanna min a shaakiriin mu ne qulillaahi yunjiikum minhaa wa min kulli kaabin summa antum tushrikuun kon day mel ne sant gi bu amul rek shirka day dugg Sëriñ Tuubaa ci biir fàggu gi mu ñu fàggu nga xam ne lépp da ko fàgguwaale moo tax ba muy nekk ca tukkeem bu tedd ba ci wala xad karam naa dégg nga mu wax ne yashir rujuu'i li tuuba waxmini waqini azal wara wal tutib lii zamma iskaana azal wara ji mbas mi tàbbi na ci biir waaye lam ca tegaat laka chama wal aradi wal hawa ubila musharikin kon nga xam ne daanaka boo santul rek dugg nga ci sirke waaye lépp suñ suñ tubaab fàgguwaale nañ ko ndax suñ borom dafa wax ne bàkkaar bu mu mën a doon rek danaa ko jéggal ba mu des bokkaale moo tax Serigne Touba bokk na ci lim gën a tàgg ci taalibe yi mooy tawhid moo tax xasaa itam yëpp ci tawhid la koy delloo kon nag dañuy sant yàlla bu baax di sant Sëriñ Tuubaa euh, Cheikh Mahoudou Mountakha itam wane na sëkk ne mat nam Sëriñ Tuubaa ndax ku fi nekkal Sëriñ Tuubaa kat fàttali naa ko ba tey lu samay wax waxi Cheikh Abdoul Ahad da ko wax ju gudd la dafa wax ne Sëriñ Tuubaa ci biir bi muy liggéeyee liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam da ca fàgguwaale xutbaani yéegi du génnati ak njabootu bi mu ne nag Sëriñ nag ba mu xamee ne amul ñaar amul ñett tamit te lim yor di leen te mënu ko jox ci bàyyi ki dafa jël lépp dajale ko ci waxande mu jël waxande ma nag lépp lu mu am mu def ko ci biir jël ceeb ji teg ko ci loxol ki mag njaboot gépp kenn mënta àgg ci waxande te jaaroo ci ki mag waaye moom itam sañut kenn ñëw laaj ko mu joxule ci ndax seen àll li mu ne jataay boobu ne bala caa kenn toog danañ la peese ak bindeef yi ba nga waddee ñu door dafa teg buñ la peese ak bindeef yi te watoo leen nag ñu dooleel la ba nga mat ko ñu door dafa teg mu ne boobaa nag lépp loo xam ne balaa la buy wàcc balaa wàcc ci kaw suuf danga cee yanu ba diis ba doy ba doy sëkk mu door wàcc ci bindéef naka noonu itam lépp loo xam ne aw yiw la balaa wàcc ci kaw suuf dana agsi ci kaw nga jël ci ba fees mu door wàcc ci nit loola nag lii fii jataay bi toll Cheikh Mouhamadou Mountakha wane na ko ci lu bare ndax ñoom dañuy gis lu agsiwut te loolu la ñuy kilifa kilifa day day xam loo xamut moo tax dañuy wax ne boo nekkee ci sa kanamu sëyin da ngaa war a mën ne kal mayiti bay na yédeel xaasili yi mooy da nga koy topp ni ki nga xam ne am néew ko koy sàng fu mu ko jëmale bu jëm fa moo tax it euh, wa tarkul i'tiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma xatahu wa ma huwa salabu li ixtiyaari li xusni zannihi bi la inkaari ndax loolu damay fàttali moom bi yi wàcc ci àdduna wàcce mboolem li nga xam ne suñ borom da ko santaane ndax inna makkannaa lahu fil ardi wa ataynaahu min kulli shay'in sababan kon loolu suñ borom ko digle ci alxuraan mboolem luy sabab ya daa santaane na ko ñëpp def ngir wane ci aw yoon te digliwu koy bàyyi waaye da ci ay jiitu lam ci war a def mu def ko ci waaye itam li nga xam ne mooy ndigalu suñ borom nag da ko jiital loolu itam suñ borom far na ko ci ba ci màggal gi itam ba mu santaane ne ñëpp xam ne ndigalu Serigne Touba la ndigalu Serigne Touba nag laa ci Cheikh Ibrahima Fati waxoon rek ci kër gi la ko waxoon ci Darou nag gii Serigne Touba du ma sant mukk lu ma dul def te du santaani mukk lu dul am loolu nag taalib yëpp jëfe nañ mooy wane ne Serigne Touba du santaani mukk lu dul te du ma sant mukk lu ma dul def foofu la taalibe Serigne Touba yëpp nekkoon roy seen jëf ji kon loolu itam Cheikh Mouhamadou Mountakha. bi nga xamee ne li xew lépp lu mu ci mas di def ñii lif adduna si na mu ko waxale boppam da cee déggoog ñoom yàlla def na man seere laa ci ba mu ma yónnee ci ki jiite réew mi président Macky Sall di ko xamal màggal gi yéen jëm ci am ak li mu ci bëgg la ma wax mooy te wax naa ko ci tele bi ñëpp dégg ko yaakaar naa ko arrière band da nga ko ci fekk nee ko li ma ko ciy fay mooy na xelam dal jàmm rek ci am kon nag yey na ñëpp kon nag wane na ne. lam doon wax ci yaqin la ko teg waaye nag tegoon na ci wax ju am solo ci biir ba bërki démb rek waxal na ko ba nit ñi njëkkee ñëw di ko wax ne Touba de dañoo seet na jàngoro ji jeex na fi wàññi ko mooy loolu nekku ci suñ ginnaaw suñ kanam la suñ Touba noppi ne ci dañ ko bàyyi ci loxo waaye nag mbirum mbirum baatin nag du lu ñu fooyee du lu ñu bàkkoo itam kon lu ñuy sant Sëriñ Tuubaa waaye du lu ñu bàkkoo kon loolu itam sëriñ bi da koy wax ci ak wéet lu bari bari nee na mbirum baytin du lu ñuy fooye du lu ñuy caaxaan mbirum Sëriñ Tuubaa dañ ko bàyyi moom waaye nag du lu ñu bàkkoo kon ñun li ñu war bàkkuñ dañuy sant te euh, Sëriñ Tuubaa dafa alxuraan dafa wax ni wa amma bi ni'mati rabbika fa haddis moo tax sëriñ bi lépp lu ngeen dégg mu wax ko ci ak may digg ma borom foofu la ko teg xultu wa xasdiya taxaddusum bi ma lii xaadahu wala yuri nii niqama kon ñoom dañuy xam lu at siwut waaye lii ko sëriñ Touba sagale ci kanamu àdduna wane na ne sëriñ Touba tey la fi gën a sëriñ am sori jaxat daana ko wax nee na kuy nattam ne sëriñ Touba nekkatu fi kon boobu amul dara ci basirutu waaye Cheikh Mouhamadou Mountakha yaqin ji mu amoon ne jàmm rek xew wane na ko ndax ñii nga xam ne ñooy wàllu gi wane nañ ko wax nañ ne màggat gisuñ benn jeexit mu am jàngur yi kon nag loolu nañ ko sant yàlla te sante ko Serigne Touba te bañ koo bàkkoo Cheikh Mouhamadou Moustapha nag waxoon na soxna Maymunatu ne ko may Maymuna lépp lu la yàlla defal ci sa yi nawle na nga ko sant yàlla te bu leen ko woon boobaa yàlla doo koy gën yokk kon nag ñun nag li ñuy Serigne tubaa defal ci biir àdduna laay wax ndax njabootu Serigne Touba dafa yaatu adduna sépp la ne te sëriñ tubaa xartalul mbiram képp ku ko sopp rek tàbbi nga ci biiram kon ñu itam nañ ko ko nañ ko sante yàlla sant ko Serigne Touba damañ ko bàkkoo boobaa kat tawféex rek lañ jural te xam ne Serigne Touba njabootam dafa yaatu te moom wax bind na ne. li may ñaanal jullit yi nga xam ne aju nañ ci man laay ñaanal jullit yi aju yi gëm yàlla te ajuwuñ ci man boo demee ci rabbi bi maay sow rabbi bi maay sow yaa malikal mulki yaa man jalla an xawdin loolu fii la ko taarifé ci Daaru Manaan gi ñu nekk tey kon moom yërmaandeem wa rahmati wasi'at kulla shay'in kon Serigne Touba mbirum xatu dafa yaatu kon na ko yaatu yaatule kon lii lii nag loolu lañ ci mën a jàng mooy gën a góorgóorlu mu gën a yokk yaqin suñu digg ak Sëriñ Tuubaa te xam ne mbirum Sëriñ Tuubaa nag ni ma ko waxoon rek lépp xarxul aadati la xarxul aadati nag mooy loo xam ne boo doon dàkk sam xel wala les scientifique di jox du bokk ak la ngay gis ndax ñoom ci seenee nattuwaay li waxoon mooy bu bu bu nit ñi buñ dajee wàllante bi dana bari kon bu ñu xëyoon ay téeméer nit mu leen di dal itam dañuy jàpp ne loolu mooy li war a am waaye nag lii xar baax la xar baax xarqul aadati la xarqul aadati nag mooy loo xam ne baax baaxuñ koo gis moo tax am na kilifa bu baax bu daa wax ne mbirum Sëñ Tuubaa day xar baax xar baax nag boo ko bëggee xam danga nga koy jaarale fu bu baax kon gën a sant yàlla bu baax rek te wattandiku itam la Sëriñ Tuubaa mujjoon wax ca ndigalam yu mujj Cheikh mm. Modou Mountakha bokk na ci lim gën a wax ne nañ ko fàttali nit ñi Serigne dafa santaane woon ci waxtaan yow mujj wax ci njariñ na na ngeen fexe fexe ba li dal diggante nasaraan yi ak yahuud yi bu mu leen dal mooy waxaalatil yahuudu laysati nasara ala shay'in waxaalati nasara laysati yahuudu ala shay'in te lool gis nañ ne ñu bëgg xew ci jamono mooy jullit yi <coughs> xeexante ci seen biir walla ñuy mel lu wujjante te ñoo xam ne ñoo bokk fu ñu jëm la ñuy wax bu dee dëgg ci ñoom la leen juyeel bariwut ndax li ëpp ci ponk yi ñoo ci bokk dëppoo bokkuñ nag ay yoon yu njaar ngir àgg ci yàlla loolu jërul xëccoo jërul waxante lu ñaaw jërul boddi konte ndax loolu ay yàqari la jur te sëriñ Touba wax na ko fu baree bëri laaj yi ñu ko laaj yëpp itam tontu ya mooy julli yëpp ak njabootam lañ daana ko wax sëriñ Souhaïbou bu laa ko déggee daa wax ne day xis bu xóot nag. muy wax ci tudd ci yenn ci nit yàlla yi di wax ne ñëwee ci moom ba mu nekkee ci géej gi am kenn nitu yàlla ku tudd ne kooko de ku yéeme la nitu yàlla dëgg la ndax ba muy jébbuli ci man de ci ak ngeer la ma fekk ci géej gi daa dagg boppam joxe ak nitu yàlla daanee moo tax nag bëgguma kenn ku bukk ci yoon muru ki leen di wax dara ndax ñi ci ëpp seen seenu njaboot ñëw nañu fi ba jébbal ma ne kon sama njaboot lañ Sëriñ Tuubaa kon yaata xatalutoon bi nda ko yaataloon kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax te xam ne Serigne Saliou ndax suñ borom dafa wax ci alxuraan walaw shaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an Serigne Saliou nag am na luy fi ma sa ci juyoo yii daa am ci biir weer yi bañ dikkee ba wax ba noppi mooy leen li ngeen wax lépp de lu baax la na ñun de ci ngeen ñu fekkoon waaye nag damaa am tuuti lu ma leen di jàngal mooy xadis ba dafa wax ne ixtilaafu ummati rahma wajtimaa fa sunna sama xeetu bu ñu wutee rek yërmaande suñu borom la daan leen yërmaande boobu yërmaande suñu borom jooju di wàcc ci ñoom nag mëtu leen a dawale kon nañ xam ne ay juyoo bu amee ci yu mel noonu itam nañ ko jàpp noonu rek jàpp ne du yàq dara kenn ku ci ne la nga na nga gise jàpp ne moo gën a jub ci saw yoon rek na la ko ñëpp warmaala te sàmm leen ko ndax qul kullun yaamalu ala shakilatihi fa rabbukum ahlamu bi man huwa ahda sabila am na ci saxaaba yu ko daa wax ne ra'yi sawaabun yaxtamilu xata wa ra'yu xayri xata un yaxtamilu sawaab kon nekk ci dëgg man nekkoo ci dëgg loolu bàyyiwuñu fi ku ne na seet la dalam xelam yaakaaram ne ca mu mu mu mu mu dëgmal ko jëm ca te yaakaar ci bari irmaani suñu borom taxana suñu borom képp mooy atti jaam yi waaye moroom jaamu da atti moroom jaamu